وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين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 ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu boole ñu nangul defal ñu jàmme àdduna ak alaxira ñaan ko mu defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas alaxira ñu nuyu jànkate alquran yi di nuyu jàngalkate alquran yi ñoo ngi nuyu ilimaan yi di nuyu mboolem ñi nga xam ne def nañ suñu jotaay bi muy seen jotaayu daara di ci nafar ak di ci fàttalante ñun lu jëm ci seen mbiri diine suñu jotaayu démb biñ ko yëkkati ñi ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu julli doon waxtaane lu jëm ci wàllu sujootu njuumte maanaam koo xam ne dafa juum ci julli nan la koy defare ma defoon ko mu nekk ay masala maanaam ay question yoo xam ne noonu lañ ko séddale woon jotoon naa cee indi lu mat ñeent waroon a ñëw ci juróomeel bi ba ko ñeenteeloon buñ koy fàttaliku mooy koo xam ne day julli ba mu yàgg muy sikki sàkka ñaata rakka la am ci julli gi nga xam ne xamatul ba xam moom ñetti rakka la nekk wala ñeent ndax loolu day am ni danay julli ba mu yàgg muy siki sàkka du xamati fan la toll ci julli gi ma ne la woon koo xam ne day julli ba mu yàgg muy sikki sàkka ndax ñaari rakka am wala ñetti rakka am bu boobaa day jàpp li gën a tuuti maanaam day jàpp ne ñaar la am day jàpp ne ñaar la am bu sëlmalee mu sujjootal ko koo xam ne it bi muy julli day sikki sàkk ndax ñett la wala ñeent day jàpp na ñett la toujours li gën a tuuti lay jàpp indiloon naa la ñaari xadis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen wax abdurahman ibnu awf moo dégge benn bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des abi saidin al xudri moo ko déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu dëgëraloon wax jooju nga xam ne moom laa la waxoon démb tey ci masala juróomeel bi dañuy wax ne ki nga xam ne dafa sëlmal ci ñaareelu rakka maanaam doon julli julli goo xam ne julli tisbaar la wala julli timis nga xam ne ñetti rakka la woon julli gi wala ñeenti rakka waa ji doon ko julli julli ñaari rakka rek sëlmal daa julli ñaari rakka sëlmal waaye fàttee tax mu def ko fàtte koo xam ne daa julli ñaari rakka sëlmal ab atem mooy day mott li julli gi maanaam bu fekkoon day jiite mbooloo ñu ne ko subhanallah mu yëg ne fi mu sëlmale ñaari rakka la day jóg indiwaat yeneen ñaari rakka su fekkente ne moom dong moo doon julli day jóg indi yeneen ñaari rakka ala kulli xaal daal ku sëlmal te fekk ñaari rakka ci nga sëlmale te waroon a julli julli goo xam ne ñetti rakka la wala julli goo xam ne ñeenti rakka la da koy day mot li julli gi bu noppee sujjootal ko sujjootu njuumte léegi nag fii ci borom xam-xam yi ay wax mooy diggante bi nan la war a toll maanaam ndax day sëlmal rek fàttaliku ko jóg wala déet ñu ne bu fekkee temps bi yàggut maanaam ma julli sëlmal ci saasi rek ma fàttaliku ne ci ñaari rakka laa sëlmale bu boobaa day jóg indi waat yeneen ñaari rakka su jootal ko baax da salaam ndax asalaamaaleykum jooju mu dugaloon ci diggante bi yokku lay doon baax da salaam waxoon naa la démb ni mooy ginnaaw bi nga sëlmalee ba noppi. su fekkee nag temps bi dafa yàgg boo ñëwee ci masabu imam malik bi nga xam ne ñu ëpp ci réew mi ci la ñuy àtte woo ñoom dañuy wax ne dañuy mottali julli gi waaye feeg waa ji euh, defut wanul ginnaaw xibla maanaam tey mu doon julli fi mu jublu penku mu sëlmal ci ñaari rakka benn mu jóg dem ca waañ wa wala mu jóg génn euh, dem ci bitti wala mu génn jàkk ji wala mu wax wax ju bari wala mu wax jeneen wax joo xam ne bokku ci julli ji wax ju baree baree bari wa mu génn jàkk ji door a ne ñaari rakk ci laa sëlmale woon bu boobaa moom julli gi day yàqu waaye bu fekkee génnagul jàkk ji jógagut fi mu doon jullee wala bu dee kër gi jógagut fi mu doon jullee wala bi mu jógee daa taxaw rek waaye waxut waxu fi wax ju bari waaye woote téléphone 30 minutes euh, def audio ba doyal door a door a fàttaliku ne man ci ñaara rakk laa sëlmale woon bu boobaa julli ga day yàqu ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day doon na julli sëlmal ci ñaareelu rakka waxoon naa la ko ca xadis ba xadisu sol yadayni bi nga xam ne abi hurayra moo ko nettali waaye bañ ko ko fàttalee sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw indi yeneen ñaari rakka doora sëlmal sujjootal ko nag sujjootu ba'da salaam boobee mu ko sujjootaloon te yonent bi sëlmal na fi posé nañ ko fi question mu tontu waaye lépp daa jëm ci biir julli gi moo tax julli waatut waaye daa mottali julli ga rek abi hurayra nee na jullee nañ ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli ci ñaareelu rakka bi mu sëlmalee euh, ku ñuy wax zul yadayni ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli gi moom dañ koo wàññi wala da ngaa fàtte waaw wàññi julli ñaar rakka wala da fàtte yonent bi ne ko ñaar yooyu yëpp benn ci mu ne ko aha kay bi laaj nit ñi laaj nit ñi fa nekkoon ne leen li zul yadayni wax ndax dëgg la ñu ne ko naam yaa rasulallah walaay dëgg la ñaar rakka nga julli nee na yonent bi jóg daal di mott julli gi indi la ca desoon bam noppee mu sujjoot ñaari sujjoot wa huwa jaalisun baxda taslim yoo xamante ne ma ngi ko sujjoot fekk ma nga toog gannaaw ba mu sëlmalee ma ne kon loolu atte la boo xamante ne loolu lay tegtale ci misaal yi la bokkoon bokk ci yi nga xam ne day waral sujjoot mooy koo xam ne daa sëlmal ci julli gi te fekk julli gi matagut julli ñaari rakka taaya far far xalaat yeeg jafe-jafe yi ndax léegi léegi léegi léegi xalaat yi daa bari nit dana kàbbar te boo moytuwul bi mu ne allahu akbar la xelam di génn ci julli ga ba mu naan asalaamaaleykum léeg-léeg koy jiite moom xelam du nekk ci biir julli gi boo ci teewlu dara dara dara ndax waaye loolu yàlla dina comprendre ndax moo tax moom euh, li ñuy li ñuy xalaat du ñu ko jàppee waaw li ñuy xalaat bu ko yàlla doon bind musiba am bu fekkoon malaaka yi dañuy bind xalaati nit ñi laa ilaha illallah kon musiba am xalaat daal benn xalaat ci moo ci naqari yàlla te neexu ko. mooy kuy xalaat yàq diggante kuy xalaat dox ci ak rambaaj e, coppiti bi ndong ci bi jaxase ay nit e, loolu moom neexut borom bi subxanahu wa taala waaye xalaat moom mu ngi nit a ànd rawatina problème yu bari yi maa ngi koy waxtaanee ak Oustaz Alioune Sall démb rek bi may dem Ali Imran TV nga xam ne ci VDN prononcé bi jaar waaye damaa continuer rek sëñ bi di daw rek nga xam ne fàtte sax ne man. ci sorti laa jëm wala barab sàngam laa jëm nga xam ne damaa dema dema dem ba fa tëli ba yem rek nga xam ne dama mënut a dem ma taxaw nag door di xalaat nag fan laa jëmoon <laughs> fan laa jëmoon xam nga ne nit ku absenté noonu ndax xalaat bu bu bula jiite woonu julleet dana ko jaxase ba doyal dana ko jaxase ba doyal moo tax ku yebu di dogalante ngant gis nga borom bi subxanahu wa taala mi nga xam ne dafa fonk julli lool te bëgg ñu jullil ko bu nit ki jullee ba juum ci biir julli gi sàllaaw du la wax ne danga maa yeb wala danga maa tegul yàlla wala da dang da nga maa sàggane danaan la rek saytaanee ko def soxlawul sax ngay reprendre raat julli gi ba tey bëgg naa jógal nga mottali ko nga sujootal ma ñaari sujoot ñun fi mu ne ci suñuy diggante léeg-léeg nit ki waroon laa woo téléphone euh, woowu la wala mu waxoon la dinaa la rappeler rapple wu la gis nga doomu aadama baat bi ko euh, alxuraan di wooyee da caa bokk ci turam ya al insaan al insaan mooy fàttekat bi nit day fàtte doomu aadama day fàtte. doomu aadama day juum doomu aadama day day day yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne dafa ànd moom moo tax ci biir julli gi jaamu yàlla gi nga gis borom bi moom régal yi mu indi di ko réparé jëf ji nga xam ne moom lay def moo tax fàttali ñu ne dana dana jariñ nit ki doomu aadama dañ koy fàttali boo jaaree ci télé bi doon daw da ngay gis foo xam ne dañ naan la fi bëgg nañ nga daw fi nangam par heure léeg nga demaat ba mu yàgg nga gis tableau boo xam ne lañ la waxoon ci bee lañ lay waxaat liñ ci mooy dañ la koy fàttali ba yàlla wàccee suñu maam Adama alayhi salaam buñ demee ba ay siècle rek ba nit sànkuwaat fàttewaat lañ indi woon raaf ci boppam mu indiwaat keneen mu ñëw fàttaliku ko day bëgg doomu aadama di fàttaliku saa su nekk ndax loolu da koy dimbali ma dellu si ci li ñekkoon muy waxtaanu julli wi moo tax leeraloon naa la ci la jiitu ne koo xam ne dafa wàññi ci julli gi sunna boo xam ne sunna mu akkada la mooy lu mel ne bàyyi aw saar ginaaw bi mu jàngee fatixa ba noppi saar muy jàng wala aaya muy jàng wala mu bàyyi taaya wala mu bàyyi ñaari sunna yu oyof lu mel ne ñaari kàbbar wala ñaari sami allahu liman xamida te fekk njuumte moo tax waaye du tayeef wala mu yokk ci julli gi yokk boo xam ne njuumtee ko waral mel ne ku doon julli tisbaar wala takusaan au lieu que mu julli ñeent raka quatre waaye mu jum julli cinq raka wala mu sëlmal ci ñaari rakka te fekk julli ga ëppoon na ñaari rakka jëf yi yëpp ku ko jëf ci biir julli day war ci moom mu defar ko mu defar ko defaru ku wàññi wala defaru ku yokk te loolu mooy mu sujjootal ko ñaari sujjoot léeg-léeg sujjoot bi nekk laataa muy sëlmal muy avant sëlmal moom lañuy wax xabla salaam léeg-léeg sujjoot bi nekk bu sëlmalee ba noppi moom la ñuy wax baxda salaam koo xam ne nag dafa yokk ci ak julleem ay wax ay wax mel ne mu jàng fatiha ñaari yoon wala mu jàng saar wi topp ci fatiha ñaari yoon ci benn rakka wala mu taye ñaari yoon ci benn toogaay kooku sunnaaluñ ci moom mu di ko sujjootal sujjoom njuumte sujjoolu sujjootub sujjootub njuumte moo xam sujjootub ku wàññi wala ku yokk lu dul ne dafa jàng fatiha ñaari yoon loolu ñëwoon naa ci ca waxtaan wu njëkk wa koo xam ne ne dafa jàng taaya ci palaasu fatiha maanaam taxaw waroon a jàng alquran al fatiha mu juum dafa jàng taaya wala yu ni mel wala mu jàng eh, aw saar ci ñaari rakk yu mujj yi te fekk dafa juum am na ñu wax ne dana koy sujjootal am ñu wax ne du ko sujjootal naka noonu koo xam ne dafa waroon a jàng ci suuf bu dee góor daa am julli yoo xam ne ci suuf la koy jàng am julli yoo xam ne ci kaw la koy jàng koo xam ne day julli waroon a jàng ci suuf mooy julli tisbaar ak takkusaan ñaari rakk yi maanaam julli gi yëpp ci suuf ngay jàng julli timis ñaari rakk yu njëkk yi ca kaw benn rakk bi ci suuf julli gee ñaari rakk yi njëkk yi ca kaw ñaari rakk yu mujj yi ci suuf julli suba ñaari rakk yu njëkk ñaari rakk rek la yëpp ca kaw bu dee góor kii nag daa ñëw ci julli goo xam ne fu ñu waroon a waxee ci suuf la mu wax ci kaw wala fu ñu waroon a waxee ci kaw mu wax ci suuf. dañoo wax ne kooku day sujjootal loolee maanaam tisbaar mu waroon a julli di jàng ca kaw buñ ko buñ ko sàbbaalee fàttali ne ko yaa ngi jàng ca kaw bu àggalee da koy sujjootal sujjootalu ko yokk su fekkente ne daa waroon a jàng ca ca kaw ca ñaar rakk yu njëkk ya mu di ko jàng ca buñ ko sàbbaalee bu sëlmalee da koy sujjootal sujjootub koo xamante ne dafa wàññi sujjoot bi nag dana jaaru kon ñu wax nan lañ koy defee maanaam nan la ñuy sujjoote sujjootum njuumte sujjoot bi defar julli waxoon naa la demb ne ñaari sujjoot lay doon yoo xam ne comme ni ngay sujjoote bi ngay julli nga koy def sujjoot mooy booy teg sa jëbi ci suuf loolu mooy sujjoot rukkoo mooy boo jàppee sa woom yi sëgg kii sujjoot day teg ñaari loxoom ci suuf teg jëxam teg ñaari wóomam teg ay cati tànkam nga xam ne juróom-ñaari yooyu juróom-ñaari cër yëpp laal na suuf am ñu wax ne ak catu bakkanam kii sujoot noonu lay sujoote comme sujootub kuy julli xabla salaam lay sujoot wala baxda salaam xabla salaam waxoon naal ne mooy avant muy sëlmal maanaam bu dee daa wàññi ci julli day taaya ba dara desu ci lu dul wax asalaamualeykum mu sujootaat yeneen ñaari sujoot doora a sëlmal baxda salaam mooy ku yokk ci julli gi day taaya ba julli jeex mu ne asalaamualeykum nga xam ne jóg dama ci desoon mu sujootaat yeneen ñaari sujoot door a bu sujjootee day sàbbaal ci biir sujjoot bi day wax subhaan rabbiyal aala subhaan rabbiyal aala subhaan rabbiyal aala siggi toog wax subhaan rabbiyal aala subhaan rabbiyal aala subhaan rabbiyal aala daa toog daa taaya julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa bii ma wax moom la ekoolu mazhabu imam Abu Xanifa jàngale boo ñëwee ci suñu ngir di mazhabu imam Malik radiyallahu anhu wa arda nee na day toog ci seen diggante ñoom ñaar waaye day taaya waaye taaya gi du julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam du fa ñaanit du fa ñaanit waaye nag bu ca jullee ci yonent bi wala mu ñaan fala baasa waaw wala yad'u waaye fa in salla wa daa fala baasa bu fekkee julli na ci yonent bi sallallahu ñaan ca it loola wàññiwul dara kon dëppoo nañ ca loola beneen mashab muy mashabu imam ahmad ibnu anbal ñu leen di wax bala ñoom dañoo wax ne day taaya bu dee sujootu baada waaye bu dee sujootu xabla moom du ko taayaal ndax taaya woon na lu ko jiitu boo ñëwee ci masabu imam Shafii rahimahullah day wax ne day toog ci seen diggante ñoom ñaar sëlmal waaye du taaya du taayawaat mo xam xabla la moo xam baada loolu mooy wuuteeg boroom xam-xam yi ma jaar ci jaar gu gaaw ndax yi nga xam ne moo ci aju mu am beneen atte nag boo xam ne attem ñeenteel la mooy koo xam ne dafa bàyyi sujjootu njuumte maanaam daa def njuumte ci biir julli ji waroon koo sujjootal sujjootalu ko mu bàyyi ko mu bàyyi ko benn mu bàyyi ko ndax da koo fàtte wala mooko ko tey moo ko tey ñaar yooyu moo ko tey wala da koo fàtte kooku lan moo koy war boo ñëwee ci mashabu imaam Malik dañuy wax ne koo xam ne daa bàyyi sujjootum njuumte te tey ko loolu du yàq julli ji ndax sujjóot bi sunna la te bàyyi sunna du yàq ak julli walahu walahu an yasjuda inchaa walaw baada sinin maanaam ñeel na ko mu sujjóot ko donte diggante ba mën na ay at eh, waaye mu ne amma in tarakahu naasiyan wa kaana qabla salaami fa lahu an yasjudahu baada salaam su fekkee ku waroon a sujjoot xabla salaam la mu fàtte ko maanaam sujjootu ko waaye fàtte moo tax fàtte fàtte moo tax bu boobaa da koy sujjoot donte ginnaaw ba mat na at ate bu njëkk bi li ci am solo mooy am na koo xam ne wax dëgg yàlla xamut ku yokk ci julli nooy def xamut ku wàññi ci julli nooy def ki nga xam ne xamut ku yokk ci julli nooy def xamut ku wàññi ci julli nooy def fàllaaw day doon koo xam ne dañ koy dogal ngant dañ koy dogal ngant niñ koy dogale ngant mooy ñàkk gaa sujjóot du yàq julleem waaye xam gaa gën damay dégg léeg-léeg ci réew mi ñu naan benn citoyen amul droit réere ay luwaay réewam ma ne ci diine itam amul benn jullit boo xam ne war naa am sañ-sañu réere ay atte diineem foofu sax la gën a la gën a ware ndax atte diine yi moom luñ lay laaj ëllëg yow ma la xiyaam la te itam mooy tax nga mën a jubóog sa borom te ci ngay jaarit ba man koo jaamu bu fekkee nag nit ci da ko bàyyi waaye bàyyi nga fàttee tax xam nga xabla salaam daana ci biir julli gi nga waroon koo sujjoot sujjootaloo ko ba taayee ba sëlmal door koo fàttaliku bu boobaa da koy remplacer ba'da salaam bu fekkee diggante ba yàqu maanaam yàggut lool ñu ne bu fekkee diggante ba daa yàgg wala mu génn jàkk ja wala mu nekk lu yàgg-yàgg bu boobaa day war ci moom mu baa mu julli ga loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci mësabu imaam Malik bu dee sujjootu baada la nag nit ki mën na koo sujjoot saa yu ko fàttalikoo ndax moom sujjoot bi génnoon na julli gi ba noppi saa yu fàttalikoo ne rek dama euh, yokkoon ci julli gi war koo sujjootal mën na koo sujjootal ñu tekke ne walaw baada sinin donte diggante ba mën na ay at ndax moom sujjoot bi xaarijun ani salaat dafa génn biir julli gi bu dee sujjootu baada nag daa nekk ci biir julli gi am na beneen masala wala yeneen masail yoo xam ne maanaam ay tomb yoo xam ne bëgg naa cee ñëw yoo xam ne dafa aju ci yi ñu doon waxtaane te léeg-léeg nag da cee am yoo xam ne day yàq julli am ci yoo xam ne ab sujjóot mën na koo defar am ci yoo xam ne ab sujjóot mën na koo defar te léeg nit ñi bari lool ay laaj yuñ ciy laaj nga xam ne yitteel na leen lool ay atteem lan la ginnaaw bi nga xam ne tudd na yi nga xam ne dafa tënku te ñu nose ko ta nga xam ne yitte lay doon ci xam ko ndax mu mën a dimbali nit ki ci ak jaamu yàllaam bu njëkk bi mooy toog ci place boo xam ne du palaasu taaya maanaam koo xam ne day julli xam nga boo jullee ràkk bu njëkk boo boo sujootee ba siggi da ngay jóg taxawi waaye koo xam ne dafa toog nag dafa toog mel ne tey koo xam ne dafa toog dafa dafa fàtte toog ci ràkk bu njëkk wala mu toog ci ràkkam ñetteel ndax da koy sujootal wala déet ndax da koy sujootal wala déet maanaam julli sa premier rakka nga waroon a jóg taxaw nga mel ne da nga faa juum toog fa di taaya wala nga toog fa toogaay boo xam ne du toogaayu jalsatul istiraaxa waaye toogaay la boo xam ne leneen la ñu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne man jalasa bi qadri jalsatil istiraaxa sahwan fi xayri mawdixi julus sajada lahu baxda tey sajdatayni boo xam ne dafa toog toogaayu diir boo xam ne tudd ay baat xaj na fa mel ne ku doon def jalsatul istiraaxa toogaayu noppaliku boobu ñuy tudde noonu nga xam ne léeg nga dem ci euh, kuy julli tey jéem a dundal sunna soosu bu kàbbaree balaa jóg bu sujootee balaa jóg day mel ne day toogaat tuuti dooru jog koo xam ne dafa def nag toogaay bu ëpp loolu te fekk njuumtee tax mel ne daa jàppoon ne mi ngi ci ñaareel kooku da koy sujootal ba'da salaam ndax dafa yokk ci julli gi ibnu xudaama ab borom xam-xam la wax na ci téeréem bu tudd al-Mughni ne koo xam ne dafa toog ci place boo xam ne du palaasu taaya toogaay bu tol ne toogaayu noppalu boobu dañoo wax ne kooku da koy sujjootal moo xam toogaay ba lu tuuti la moo xam lu bari la ndax dañ koy jàppee toogaayub ku yokku ci julli gi beneen tomb bi ci toppaat te bokk ci yi nga xam ne léeg-léeg mu mën a dal nit ci biiru julli ñu xalaat ko dugalaale ko ci waxtaan wi mooy koo xam ne dafa taxaw ci ñetteelu rakka te taayewut xam nga ku julli ñaari rakka fe ñaari rakka taaya door a taxaw kii nag daa julli ñaari rakka au que mu taaya mu daal di taxaw fàtte taaya ja fàtte taaya ndax day dellu si toog ndax day dellu si toog wala déet ndax day dellu si toog wala ndax bu toogut day yàqu wala déet wala ndax da koy sujootal wala ndax du ko sujootal moo tax ñu su fekkente ne bi muy jóg tàqalee guugut ak suuf si maanaam dafa mel ni rek nee na ñokket ba toogu kaayam tàqali ko fi mu waaye ay bëti woomam ak cati loxoom ñu ngi ci suuf mu dellu si waat toog bu boobaa dara waru ko dara waru ko waaye isaa faaraxal ard bi yadayhi wa rukubatayhi fala yarji bu fekkee nag tàqalikoo naak suuf si du dellu si ndax ndax taaye jooju sunna la te taxaw bi farata la te taxaw bi farata la te kenn du bàyyi farata di dem ci sunna waaw wérut nit ki di bàyyi farata di dellu ci na waaye nag war na ci moom mu sujjootal ko mu sujjootal ko sujjootu ko wàññi ci julli gi loolu mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi dëppoo ma jaaraat ci nit ki day julli ñëw ci ñaareelu rakka nga xam ne daa war a toog taya mu mel ne rek daa jàpp ne ci ñetteel la nekk wala ci rakka bu njëkk mu ne ñokket bi mu ne bërit bay jog fàttaliku ne taayaaguma te jógagut ba taxaw ba ne jonn mën naa delluwaat bu fekkee loxo mi teggee ko gut ci suuf waaye daa jël intention wu jóg mën naa toog taaye door a jóg waaye bu jógee ba taxaw ba ne jonn du dellu siwaat di toog siwaat day continuer julli gi day continuer julli gi ndax dellu si waat gi maanaam toogaay boobu wala taaye jooju na la te dégg nga taxawaay boobu taxawaayu farata la te kenn du bàyyi farata di dellu ci sunna waaye nag wa alayhi an yasjuda li sahwi ittifaqan borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne da koy sujjootal sujjootum njuumte da koy sujjootal sujjootum njuumte xays ibnu abi xaatim nee na salla bina al muqira ibnu suxba fa qaama fi rak'atayni fa sabaxa annaas xalfahu fa ashaara ilayhim an quumu falamma qada salaatahu wa sajada sajdati sahwi fa qaal wala xaala xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isa isa stattum ahadukum qaa'iman fal yusalli wa yasjud sajdati saxwi wa in lam yastatim qaa'iman fal wala saxwa alayhi xadis boobu boroom xam-xam yu baree bari indi nañ ko xays eh, ibnu xaasim ne dañoo julli ku ñu ku tudd muxira ibnu soxba moo ñu jiite nee na mu julli ñaareelu rakkaam waroon a toog mu jóg taxaw bi mu jógee taxaw mbooloo mi ci ginnaaw sàbbaal ko subhanallah subhanallah nee na mu liyaar ñu ci loxoom ne ñu nañ jóg taxaw fekki ko ndax fekkoon na mu taxaw ba noppi ba mu jullee ba sëlmal mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne ci yéen dafa jóg ba taxaw ne jonnu te fàtte e, taaye ji nga xam ne moo njëkk ci julli bum delluwaat di toogi na àggale julli ga te sujjootal ko sujjootum njuumte koo xam ne nag jotul woon a taxaw na toog te moom kooka ab sujjoot du ko ca war ndax moom jutta taxaw ba ne jonn loolu ay xadis yu baree bari boroom xam-xam yi indi nañ ko ci am na beneen boo xam ne imaam Ahmad indi na ko Muqira ibn Suhba mii moo ko nettali mu xaw a nuróog bii waaye daanaka ñoo bokk ay wax joo xam ne moo ca nekk am na boo xam ne imaam Abu Daawuda indi na ko Muqira mii ba tey moo ko nettali waaye riwaaya wuute mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ida qaama al imaamu fi rakatayni fa ida zakara qabla an yastawi qaiman falyajlis wa in istawa qaiman fala yajlis wa yasjuda sajjati sahwi yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla nangul suñu julli yal na yàlla jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc bëgg ñoo jéggal moo tax mu indil ñu ay buntu yooyu dañ ciy defaraate suñu jëf ndax moom du gedd te doomu aadama ay jëfam ak i njuum te ñoo ànd yal nañu yàlla may kendalu jàmm ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di bég ci ni ngeen di toppee jotaay bi jaajëfal baax imaam alxaaji oustaz Alioune Sall moom la ñuy bàyyee toogu bi mu wuutuñu ñëw ak ñun ci waxtaani fajar yu am solo yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali nihaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di al misbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa